cheikh mouhamadou muntaxa bachiru mbakke kilifa ak murit yépp noo ngi sant sunu boroom mi def ak dindi di julli ci ngën gi mbindeef sallallahu di boole sant ak ngërëm ci sunu yaakaar yi àddina ak àllaaxira di sunu wéeruwaay muy xaadimu rasul fondation Cheikh Ahmad Bamba bu Amérique ak ñooy jaar ci samaw làmmiñ man alaaji Mamadou Thiam di la jot li nuyoo ak ziyaar ak ñaanu mbooloo mi di la nuyu ci turu sëriñ Mamor Mbacke Mourtada mi nga xam ni mooy kilifa gi nga teg ci sunu kanam mu yebal fi rakkam sëriñ Abdoulaye Mbacke yebal fi sëriñ Mourtada Amar ak délégation bi ñu àndal nu di sant di dellu di santaat sunu borom ci jataay bii nga xam ni am nañ ko ak yow muy jataay bu tedd ndax sa jëmm ju tedd ji nu ànd nag ak sunu kilifa muy sëriñ Fallou Samb jiite mbooloo mi moo teew nii ànd yit nag ak ñoo xam ni jàmbaar lañ ca liggéey ba waaye daawuñu teew te yàlla dogal ñu teew ren ñu cey lim sëñ Moustapha Diop bu dalaas bi nga xam ni lu jëm ci mbaal wàllu njàng ak njàngale ca alxuraan ja ak ca xasida ya moo ko yor di la nuyoole sëriñ baaba kër Diouf mi nga xam ni Canada la ne moom moo nekk ci kanamu jëwriñ yi mbooloo mi yëpp nuyu la kon ci turu ñeent fukki ñett ñeent fukk ak ñett jëwriñ yi nekk ci biir Amérique ak Canada nuyu ci turu soxna Khady Sall mi nga xam ni moo jiite soxna yi nuyu la ci turu sëriñ Mouhamadou Mbuub mi nga xam ni moo jiite ndaw ñi di santaat yàlla doole julli ci yonent bi doole gërëmaat borom Touba. mbakke am na sunu mbokkum taalibe mu ñuy wax sëriñ Saliou jóob waxtu wi daaw mooy ki coordonné addiye di ko indi dafa demoon Makka nag ba ñëw waaye xaw a am gàllankooru yaram ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ko. mu dellusiwaat ci jàmm ñu ngi amit ku nuy tuddee sëriñ Xaadim Cissé ne ca Atlanta waxoon nañ la fi mbiram sant nañu bu baax ndax tane na waaye dañoo bëgg bu déwénee nu ànd ak moom ñëw teew fii ci sa kanam Mbàkke noo ngi lay delloo sant di la delloo gërëm di la ndokkeel ci xew-xew bi weesu muy màggal gi ci sa taxawaay ak taxawaayu murit yëpp Mbàkke day mel ni ren ji fondation bi dañoo wax ni danoo bëgg a waxtaane loo xam ne murit ci àdduna bi yëpp ko bokk waaye waxtaane loo xam ne it Sëriñ Tuubaa ci boppam nangu nañu moomale ko taalibe it moomale nañ ko ko muy Tuubaa Tuubaa di kër Sëriñ Tuubaa waaye di dëkk bu sell mu mel ni xolu murit yëpp fii lay fanaan si sëriñ Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon ni at mi mu wuutee sëriñ Fallou gouvernement bi di fa yónnee ay sécurité mu xam ne woon ni sécurité bu bari bi jaru ko ndax Touba taalibe akub sëriñ ñoo fay daje kon sécurité bu bari bi jaru ko sëriñ Abdou Lahad moomee moo dem ba jamono agsi mu indi fi gendarmerie lu waral loola nag mooy dëkk bi daa rax rax googu dëkk bi rax mu indi fi gendarmerie laata mu koy indi it dafa ànd ak mboolem leeri Serigne Touba yi ñu xaatim bind wax ni ñu bëgg dox dëkk bi doxe ko bañ ca jógee muy dox baag si Serigne Saliou Mbacké moom it moo indi fi police bii ci jànnat lépp ngir kaaraange ak rax bi nga xam ne am na ci dëkk bi nu dem ba mu agsi ci yow yow nag nga dajeeg jamonoy réseau sociaux dajeeg jamono joo xam ni làmmiñ ak wax dafa tinkeeku nañu daan def sax di jaar ca télé ya ak di jaar ca rajo ya ñu am luñ cay seeg loola sa jamono moom daa dajeeg réseaux sociaux nit ku ne fi nga toog man ngaa toog wax la nga bëgg a wax tasaare ko ci àdduna mu àgg fépp ci minute ba te ñu ci ëpp nekk ñoo xam ni la yàlla xam doy na kon yow sa jamono gën a metti ci wet googu waaye nag bala noo jàll ci lenn Mbàkke ñoo ngi tuub tey tuubal ñëpp ndax ku xamul xamul noo ngi tuub tey tuubal ñëpp ndax ku xamul xamul noo ngi tuub tey tuubal ñëpp ndax ku xamul xamul sa jamono jii nag nga xam ne réseaux sociaux yi dañ cee am sa jamono jii nga xam ne làmmiñ dafa tinkeeku jamono jii nga xam ne nit ñi xamatuñu la leen war day mel ni dafay jaadu nu waxaat ak murit yi ndax sëriñ Touba bi mu nekkee ci àll Touba bi ba découvrir tuuba dafa woo mag ñi ni leen kaay leen ma wax leen lu neex a dégg cib nopp waaye naqaree takk ci xol foofee la wax dëkkam bii na muy mel foofee la wax dëkkam bii lam ci bëgg booba ba nëga ni lu jamono gën a dem jamono di gën a dëggal waxam jooja ndax moom suñ borom may na ko lépp mu teewe lépp laata mu fiy jóge ci saay kon dëkk bii nga xam ni moom la murit yëpp bopp dëkk bii nga xam ni murit bu ne sa xol fii la ne nga taxaw ci taxawaay boo xam ni amul taxawaay bu ko gën a mën a féete kaw ndax na nga taxawee mooy àdduna bi li fiy dox mooy économie mooy ab xaalis ay nit dajale tabax génn ca mbedd ya déborder ci mbedd yi defar seen i commerce def seen i lépp nga joxe ndigal bàyyi faal yi ànd ak ñoo ñee nga xam ni ñoo ca am alal ñoo ko ca defoon ñu wëlbatiku ànd ca toj ba ak ca yaatal ba ak ca leeral ba kon loola won nga àdduna ni murid yi ba léegi am nañu kilifa waaye nga wëlbatiku it nag la tey yoonu gendarmerie ak police di administration loola it nga jox leen ko ñu di ko doxal kon taxawaay mënu la ëpp boobu taxawaay murid yi Amérique ak Canada ñëpp a ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay boobu mu mel ni àgg nañu foo xam ni ci jamono nii mu demee faaw nu wax ak murid yi ndax ay taalibe lañu te dëkk bi rekk lañu am te dëkk bii ki ko nangoo moom muy Serigne Touba moo ëpp ñëpp jom moo ëpp ñëpp ngor moo gën a xam ñëpp yàlla moo gën a ragal ñëpp yàlla moo gën a jaamu ñëpp yàlla kon kookee bu nee sama kër gii lii laa fi bëgg lii laa fi bañ bu ñu dee ay gor bu ñu dee ay jullit bu ñu dee ay murit lam fa bëgg ñu def suñ kéemtalaay kattan ngir def ko lam fa bañ ñu daw ko suñ kéemtalaay kattan te loolu lii mooy wax ji bu nu bëggee jariñu bëgg a bokk ci ñi nga xam ni moom la sëriñ bi dig Touba ndax dañuy Touba li habdin muridin saadixin la homo bi xidmatin aw bi hubbin aw addiyaati loola nag ku ko bëgg a am da ngay def li sëriñ bi wax mooy dangay dëggal ci sa bëgg sëriñ bi da ngay dëggal ci sa gëm sëriñ bi dangay dëggal ci liggéeyal sëriñ bi waaye da ngay dëggal ci di jox addiya sëriñ bi kon loolee xam nañu ni ñi nga ko dénk muy Baye Fall yi loolee fireeku na ci Cheikh ra ndax Cheikh Ibra moom kenn du wax lu jëm ci ak taalibeem kenn du diingat lu jëm ci bëggam sëriñ bi kenn du diingat ci liggéeyam te liggéeyal sëriñ bi kenn du diingat ci joxe àddiya te di ko jox sëriñ bi kon boo ko wëlbatikaatee jox ko jox ko yi def nga li nga xam ni mooy la sëriñ tubaab bëgg kon nit ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nanu am jom nanu am ngor te xam ni waruñoo yàpp sëriñ bi waruñoo it doxale noo xam ni ku nu ku nu ku nu xool jàpp ni dañ dul njabootu Serigne Touba. te ni koy waxee Serigne bi moom bañ ko fi gisee ba bañ ko fi noppee gis yàlla ak yonent bi leneen raxu ko kon ñu nit bu nu bëggee doon ay taalibe te bëgg a jariñu ci li Serigne bi indi dañuy ta dañ lay déglu te dégg la te xam ni ku am sens ku am sens job jamoonante ak yow te déglu la te dégg la te xool ci yow doo def lenn luñ lay xeebati Mbàkke liñ lay ñaanal moom mooy nga yàgg fi te wér li nu lay ñaanal mooy ngërëm mi sëriñ Tuubaa yi nay dotteeku ci yow bu mu taxaw li nu ñaan nag taalibe yi nga xam ni moom la ñu ñaan muy rawati ñi nekk ci diaspora bi ñoom dañoo wax ni sëriñ bi nga ñaanal leen ñu am jege gu sori gu jege li ñuy ñaan nga ñaanal leen woo ñu am sori gu jege nu sori dëkk bi ndax ci ay kilomètres waaye ñu jege ko mel na sëriñ Touba bëgg waa Touba it noo ngi sàkku nga ñaanal leen ñu mucc ci jege gu sori yàlla na nga ñëpp ndam noo ngi lay nuyoo léegi Serigne Khadim Thiam mi nga xam ne moo yore fondation bi fii ci euh, Sénégal moom it ak Khadim Samb ak Serigne Lamine Mbaye ne ca Washington te del ci dëkk bi kon Mbacké wax ji gudd gàtt mooy yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga ëpp ñëpp ndam yàlla na du yëpp dégg sa wax te jëfe ko jërëjëf Mbacke. Mbacke jërëjëf Thiam. alaaji Makumba Thiam waaw Modou Kumba Kayta Thiam waaw Modou Kayta Thiam waaw moo wax noonu waaw. jërëjëf yéen waa fondation Cheikhul Khadim jërëjëf Serigne Modou Kayta Thiam kon mu ne dégg na kàddu yu baax a baax mu ne mi ngi bég lool. di ci sant bu baax a baax di ci soññ bu baax a baax mu ne jërëjëf Thiam mu ne fa tabaarakallaa mu ne ñi ngi ñaan suñ borom mii dafa ko dindi ngeen gën a am ngatanug sëriñ bi ngeen gën a am ngatanug sëriñ bi suñ borom gën leen a gàttandoog tawféex sëriñ Tuubaa mu ne loolu mu ngi koy ñaan bu baax a baax mu ne yaakaar mi dolliku na bu baax. mu ne fas yéene gën a feddal suñu laxasaay rek. fas yéene ko gën a ànd ak yéen. sax dàkk ci liggéeyal sëñ Tuubaa mu ne jër ngeen jëf. mu ne fa tabaarkalla mu ne sant na baax ci taxawaay bi ay yitte ji ak pësee bi rawatina rakkam yi mu àndal rakkam yi ngeen àndal di ay jóorinam ngeen bàyyi ko ci Cheikh Mamour Mbacke moom Cheikh Mamour Moutada ci taxawaay mu rafet ak liggéey mu rafet ci àdduna bépp ñu gis ko mu ne noppal na ko ci lu baree baree baree bari rawatina sëriñ Abdou Lahad mii nga xam ne jërinam la nga xam ne ci gannaaw sëriñ Maam Mor rek la topp ànd ak moom ci liggéey bi sëriñ Modou Xabaan mi ngi ni toog waaye sëriñ Chérif moom tam mi ngi ni toog kon sëriñ sii ngeen ànd di sët sëñ Tuubaa yi tawfeex ju rëy seen biir la kon sëriñ bi mi ngi leen di ñaanal bu baax suñ borom dimbali ñu ba ngeen daje tawfeex sëñ Tuubaa seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yëwén seen lépp gënd di ba gën gi barkeel kon yéen waa fondation Amérique na ñëpp tàllal seen loxo ñu may waa France incha allah سفه لي نعيم لا أفارقه وأمره لي طوء لا أنازعه آمين جرجف ني ماي وا فرانس ياكسي